di nuyu nag mbokk téléspectateur yi bu baax a baax a baax ñi may seetaan ba ca bitim réew parce que xam naa ni euh, bàyyi nañu xel bu baax a baax a baax ñu leen di ak yàlla lu fa waay di wut yàlla na ko suñu borom yombalal tey sama gan bii toog sama yaay la sama xarit la di yaayu ñépp nag yaayu ñépp ñu koy ñaanal yàlla yàlla ko yàlla may fanu gudd waaye tey euh, ma dama ñëw sama yaay bu baax a baax pour ngeen xam ni sama yaay fi ma ko teg fonk naa ko sama yaay may mun a jëw asalaamualeykum. aleykum asalaam sama doom sama goro. di sant yàlla julli jant bi sallallahu alayhi wa sallam di yàlla bu baax a baax a baax bu ma yàlla indee ba ci sawet fii ma toog janoog senegal yëpp maa ngi nuyu ñëpp di nuyu kilifa diine yi di ñaan ci yàlla yàlla may leen jàmm yàlla wéral leen yàlla guddal seen fan maa ngi ñaanal kilifa aada yi. yal na yàlla guddal seen fan yàlla bàyyi leen yi lépp lu ci waay di wut yàlla ko yàlla takk say loxo maa ngi ñaan Sénégal yal na fi yàlla def jàmm di la ñaanal yàlla yow tamit yàlla na yàlla sa fan yàlla jàppale di ñaanal kër gi mu yal yàlla jàppale ko yal na yàlla yeggale ko fa mu jëm ñëpp kontaan nañu ci moom jërëjëf sama yaay euh, li nga wax léegi neex na trop la DG Pape Doumbouya ko ku ko nuyu rek man nga ko ñun nga ko nuyu parce que ñun moonu yor fii te daf noo jàmmal daal ku ko muñ ñun ñun nga ko muñ ku ko ñun nga ko ñaanalal kon yàlla na ko yàlla dooleel bu baax a baax tey nag euh, fi ma jëm xale yi jigéen ñi armé wu leen ci seen kaw laa jëm si ndax sama yaay dafa ñëw ni ma damaa bëggoon daal ñu waxtaan ci xale yi nga xam ne yoon ci seen kër gore yi di sëy te sëy ñu sëy ba carrément waaye nag bu leen mer man maa leen fi toogal maay seen avocat yaay danga ñëw ni ma xale yi de bi ñuy sëy rafetlu ma ko damaa bëggoon nag man man laaj la lu tax xale yi ni ñuy sëy yow rafetlu woo ko léegi. maa ngi maa ngi maa ngi rafetlu émission bi di waxtaan ci xale yi tey yii ndax seen sëy yi ñuy sëy du sëy bu ma rafetlu ndax sëy daf daan ànd ak muñ sëy daf daan ànd ak fulla ak fayda yi guddi lañ yow mu dugal ci néeg dañ laa seeyloo sëy si loolu ñu lañ laa seeyloo ginnaaw da nga ñëw nag fekk sa yaay jëkkër muy sa gor te dafa daj daj ba indi jëkkër te ba indi sa jëkkër tegal la mm-hmm. tey bu fekkoon ne tey jii liggéey liggéey bu rafet du fa am sa jëkkër ba mën laa jël ba nga indi ci biir kër ga ba bëggoon kenn ku nekk nag di liggéey liggéey bu rafet di sa goro di di def def euh, sëy bu rafet ndax ñun mag ñi kat sëy bu rafet lañu daan sëy ma ñoo sëy benn sëy xeebeel moo tax ñu am doom yu baax yi tey ñii mm-hmm. ñoom daal ma doon sañoon ñu jàpp seeni goro xam ne goro ndey la ndax boo seeti ki yaay ja nga bàyyi ca sa kër bàyyi ko gannaaw ñu fekk si sa goro goro yaay la goro ndey la ndax mooy yaayu jëkkër te moo la jox sag bi nga tax jëkkër mën a am ba tax nga mën ñëw ci kër gi sëy si man moo taxoon ma dal ci seen kaw ndax te am na boo xam ne bii neexuma ci ñoom ndax ñoom xale tey nii li ma gis ci ñoom ndax bu njëkk da ngay sa goro sukk da ngay ñëw ne salaamaaleykum da nga fanaane te ñun daaw ñu ne loolu sagoro boo koy nuyu mm-hmm. da xëy suba teel nga ñëw sukk ci kanamam nuyu ko bu jullee ba pare ñëw nuyu sagoro ni ko loo bëgg a ndékkee mën na nangam bi laa bëgg nga daw ca la mu soxla ñoo mm-hmm. jox ko mu ndékki ba suur bu dee day sangu nga ndox ne ko kaay sangu waay da mm-hmm. nga daan defal sa yaay ndegam daan doo defal sa yaay te ma yëgal la sa yaay fonk sa goro ku fonk rek fonk sa goro ndax goro mooy yaay la nga def sa yaay ca kër ga ba agsi soo ko defee goro di ngeen jubóote di ngeen mën a nekk waaw soo ko defee noonu rek di ngeen jubóot te di ngeen mën a di. waaye yéen tamit yaay yéen tamit da ngay ci benn côté léeg-léeg nga fekk fa goro yoo xam ne kenn mënu leen a satisfaire loo leen defal ci lu baax doo ko gis da ngay dañ dañee dañ dañi nga daw daw daw ba bëgg a dee muñal seen doom te duñ ko gis te man damaa defa ni yow bu la yàlla booleeg sa borom kër yaayam nekk fa. sa borom kër demewul noonu nga ñëw di ko sëy sëy si dañ laa war a jàppale boo bëggee seen doom dañ laa war a jàppale mais na ñëw fekk fa goro yoo xam ne dañuy mujjeeg sax seen goro dañuy mujjeeg seen goro lu sa jëkk sa jëkkër lu mu la defal ñu ne ñoom war nañ koo am te nag di ngeen a bëgg a dox seen ndaw jeex bëgg a ñëw ñun xam nga loolu ñun ko nangu. waaw euh, loolu nga sax am na waaye nag ba tey tamit. mu euh, ñe mu ñëwante daf koy am ndax ki nga xam dafa jur doomam it néew bi jabar teg ci biir kër gi te xamalatul doomam dara du neex ndax am na ñoo xam ne ñu xasee ba indil leen doom ci biir kër gi dañuy daal di man rek maa moom man rek maa moom sama jëkkër dootuñu may nag seen yaay ya dara bu yaay wootee sax nga ne ma nga yàq sa ma nga yàq xew xalam bu yaay wootee nga ne wutal man ñu wutal wujj te fekk na araam. boo fekk na booba dafa war a woo doomam di toog ak doomam di waxtaan ak doomam ndax kenn ku nekk bëgg nga am nag bëgg nga raf sa doom jege la te bëgg nga it nag di yedd sa doom ak soxnaam mag ñu baax ñi da dañuy yedd seen i doom seen diggante ak seen i jabar ko téye téye bu rafet na ko dimbal te yërëm ko man day goro ya ma xam te ñu baax lool loolu mooy seen liggéey ak seen i goro du ñu yokk benn benn seen diggante seen i doom ak seen i ak seen i goro waaye nag xale yi nañu nañu xam ne ñoom itamit nag. yaay jëkkëram nag ci boppam def ko rek ni yaay man daal loolu rek laa wax man daal su ma leen balaa bii mooy yaay jëkkër daal def ko ni yaay gën a bàyyi gën la lu mu bëgg soxla boo koy dajal añ sax gënu sew ceeb bi fab lay ut ci ndax ñun lay rek ci kàpp jël ndox ba nga ca ba suur dana ko yaay suur ga ulaa yéen boobu guro ndax man ñi guro rek ñun guro rek la ñu ko defee ngeen doomu gura yi digg dafa yaay ya, am gura gaa ngi li bu ko defee xolam sedd so xolam seddee rek sa xolu jëkkër sedd nga jur fa doom ju baax doom bëgg doom ju baax daya koy sokkal borom te damay wax ne ba tey góor nañu xam ne lal doomi buntu lal moo jëm ci doom yi lal baax na mbir bon ba lal la loxo di bëlëx di ba ca ba ca ba du doom ju baax doo ko digg lal it moo tane waaye nag buñ ci buntu lal bee tane bi nga xam ne da koy topp di ko topp laa la baba baba baba ba nga egg si boobu booba doomay doom booba doom yooyu tey nag tey ñooy doom yi tekki yi tey ñooy doom yi ndax ku ne war nga ko wutal gi ci ne war ngaa sëy te yàlla tax ndax doom ëllëg ndax boo gisee doom ju baax daal di tabax dugal la ca yóbbu la màkka mm-hmm. ah jël yaayam di ko noññee mm-hmm. ah liggéey bu yaayam liggéeyul dara doom du am dara waaw yaay liggéey kon nag ñu góorgóorlu te nag moom laa leen sant. sama yaay li waaye man ba rek man fu mu rek man suul. man loolu laa fi nekk parce que man maa ngi maa ngi ci ndaw ji. yaay yéen xam ngeen lan la yéen euh, boo dajee goro bu fiir. du la may foo toogee sa borom kër. su ngeen toogee war a toog waxtaan sax bu ko doyewul dara sax. dina ko woo ko pol xañ la waxtaan bi ngeen war a waxtaan yéen ñaar moom daal day mel ni daal bu sa tax na ko waaye dugg ko. yéen dama koy seetlu ci yéen léeg-léeg nga am sa borom kër mu nekk bitim réew soo génnee dem marché sax yaayam woo ko newu fi de wooteel ba xam boo la woo ko wootee du la wuy ci kër gi de daa ko da leen di jaral ngeen wut fii si teg ci kër gi waaye léegi yow bu fekkente ni moom dem génn nga dem xew maam mu génn dem marché wuti lu am farata ngeen woo borom këram ci ginnaawam jaxase ko moom léeg-léeg sax sa jëkkër nekk fii xëy wàcc ñibbisi si kër gi ngeen war a am jàmm. su su la nuyoo dem di nuyu yaayam bu ko nuyoo yaayam ba toog yaayam dina ko wax loo xam ne yow bu ñëwee rek day dal ci sa kaw dootu leen mën a toog sax waxtaan dafa am goro yoo xam dañoo doy waar sama yaay ñooñu tamit nañ a seet ni ñu defante waaw euh, loolu nga wax lu dëgg la ndax gis naa goro yoo xam ne bu jot ñooy tas sëy yi ndax dañuy tas sa sëy yi mooy wax loo xam ne teguñu ko fenn billaahi ndax sa doom bu génnee dem bitim réew bàyyi jabaram ci sa wet ma defaroon da ngay nax naxal ndax ko na xam ne ni jëkkër ju la woon gannaaw dem metti na mujj rekk fa sës te ku ne xam ne ni jigéen jigéen rekk la kon su mujjee dem ak yow di la déglu loo bëgg ma defal na ko te borom këram sore na ko te ku ne xam ne sa borom kër bu la sore sa xel sore ku ne xam na loolu mm-hmm. benn jigéen bu ko muñit da nga koo muñ ci pexe rek waaye ba sa yoon sa jëkkër dem ba kon loolu bu amee mm-hmm. yow ngay gorom wax fa dëgg yàlla ñu ci borom nga am loo xam ne lii wax bu rafet mm-hmm. nga di ko teg ci dara waaye da nga dëgg am na ñoo xam ne ni dara bu rafet seeni goro amuñu ko toujours ñu ngay làmb lu jaaw di leen ko wax bu demee marché ñu taqal ko bu génnee dem xew ñu taxal ko. bu solo sax sa jëkkër new fi ngay sol. ana koy sol. loolu yëpp du du ànd bu rafet. am na goro yu ngay def am na goro yoo xam ne wax dëgg yàlla jàmbale ñu seen seen jàmbale doom am na ñoo xam ne jàmbal nañu leen wax fa dëgg yàlla yëpp am na ñoo xam ne li nga moo ci am dëgg-dëgg nag ñoom laa farle waaye wax dëgg yàlla am na foo xam nag farle ma leen fa waaw ndax sa doom li muy jox rek sa loxo la koy teg te itam nag am na góor yoo xam ne sax man tamit. dinaa leen contre foofu. ndax sa yaay waroo ko jox dépasse. Ah, sa yaay waroo koo dex dépasse yaay du yor dépasse. Hmm. yaay du yor jël yaay du yor dépasse. koy yor dépasse a koy yor. Hmm. su xëyee dem marché moo ko yor naa la ko fekk sama yaay ba yow laa jël yor ku koy def itam yaa ngi bëgg réeroo sa diggante sa yaay ak sa jabar waaw wala yow sa yaay ci boppam dimbali bu xëyee yàq sa der bu xëyee na sa jabar toogal maa ngi ñëw. bott ca marché ba yàq na deru doom yàq na yàq deru doom am na ñoo xam seen doom jënd nga kër mm-hmm. tabaxal leen dugal leen fa suñu xëyee ñu ci pet daw yàq seen deru doom te seen dara manqué wul yor ñu dépasse yor waaye suba bu ñu yeewoo ñu nga ca marché ba daan moo ne de li ma li ma de dama de doo ma dama dépasse bi mbaa mm-hmm. soo waxee ni jeex na wala bu demee marché dugg lu baax dama ni li ma wax ci gor yi dëgg la sukk na nag sëkk gaa ngi ci noonu. xale yi sëkk noonu waaye ñun sëkk noonu. naa sëkk noonu dama wax sama yaay de fekk si nañu fekk si nañu bu baax a baax euh, daf ci am goro goro yi jël seen dépense doom yi di ko garde loolu mooy indi réeroo sax ak seeni goro parce que tam yow lu yor sa dépense ba retraité te leer naa ni ba nga yor sa dépense. sa goro yoralu ko yaa ko yoraloon sa bopp. kon sa doom bu takkee jabar indi ci kër gi war nga bu ñëwee di la jox dépense bi sax nga ne ko man wàccoon naa dépense demal nga jox ko borom borom ma ngi koy jox ngalawaay nag doon ku mën a gérer nag te bañ a yàq di premier au trente bu ko sa jëkkër wàññee jox la teg ko ci sa loxo kooku sagal na la kooku mooy góor gi la sagal am na ñoo xam ne bari ñu koo jot dinañ xëy tës tësi ba 10 heures ñu door la ko indi kon soo amee ku la ko wàññal di premier au trente waroo koo yàq da nga koo war a téye waaw yóbbu ko sa boutique ba sax teg ko fa chaque jour ak li ngay jël te yaay ma ñëwaat ci jël bi ndaw ji ba tey nañuy yokk dépense te moytu natt yu bari yi dañ ko moytu di lundi au vendredi samedi dimanche yépp nga koy natt li nga bëgg a def yaay ci sa njël doo ko def te man bañ naa jeeg boo xam ne danga ñëw ci kër say sifa fekk fan ak say wujj peeg corgo ak say wujj تصو أي نبدي المول يا يوم بنيا كتر لولو بخ أنا دخت لجنا بنوي كفاسيون يي دف أكسر أب خم نقول أنا جي ولا أنا ما خم قلنا أنا خم وأنا دامك أنا قاعد جي جي بني جالك دخ أنا بدو أنا بدي الخمس بدي أنا بدي الخمس أجمل سامدي دماغ أجمل ثلاثة أنا بدي أكسر fekk denc ko la yóbbu avec li nga yóbbu avec foo ko jël ndax jigéen am lu bu fekkee ni kat da xëy di wàcc man mm-hmm. ngaa am la yóbbu avec mm-hmm. bu dee da ngay xëy di jaay mm-hmm. dimbali ko dimbali kër bi dimbali sa bopp man ngaa yóbbu avec waaye ginnaaw yaakaar na lu ñuy jot a am ne bu weer dee ak ñëw suñu ko teg ko solo ko muy dund maa dépassement leneen nga yaakaar ca avec ah yaa ngi dina dootoo togg lu doy xale jéeg nga xam ne nag ñu ngi def avec dëgg yàlla am na ci ñoo xam ne kontaan naa ci ñoom ñu ngay dimbali seen i jëkkër lu ñu fa jëlee doole ko ci yéen kër gi fa jëlee def ko ci ci ci biir kër gi wax dëgg yàlla am na am na ñu bari ñu ma ci xam ñoo xam ne ñu ngi jàppale seen seen i jëkkër te ci loolu rek ci la ñu koy def ci avec bii ñuy def kontaan naa waaye am na ñoo xam ne nag ñu leen seen jëkkër jox ak yooyu ñuy coppati dem ci avec suñu demee ci avec ba leb fa nag yàlla bu ñu fa leb nag bu ñu fa lebee fay jot tey jëkkër la avec waaye damaa faa leboon ñeenti junni kat ba ngay fay su ko defee coppati la coppati jooju ngay coppati bu yàggee mu doon kàmb te kàmb ci kër baaxul dootoo togg lu doy dootoo am loo dool yow jël te nag dina wax rek bu jigéen dafa war a dolli sama jëkkër yi ma jox rek ci laay jigéen dafa war a dolli waxuñu doolim nag wayaani waxuñu doolim ñaani waxuñu doolim yàq sa der déedéet da ngay daal sa doole rek te yàlla tax te jigéen ñi dañuy daal seen doole rek kenn toogul nag kenn toogul nag wax dëgg yàlla ku ci nekk yéen a ca ñaw mm-hmm. ya. yéen a ca ca ca jaay ba. Mm-hmm. yéen ci biir kër yi di di di def seen ñi ñu di ràbb. Mm-hmm. yéen a def leen na yàlla tooguñu kon nag loolu ñuy góorgóorlu. man loolu laa bëgg ñu gën cee góorgóorlu. te sëy te yàlla tax. dafa def sëy daal te yàlla tax moo ëpp lépp. moo ëpp lépp ci àddina waaw lu la du la lu la nit war a wax. sëy loolu de yàlla tax. ëllëg daal ci doom ju baax. du dara kon dañ ma jàpp. kon jéeg yéen a ngi dégg sama yaram. daal xasu leen sax dañu doon naab. di leen delloo ci sëy. ndax tamit nag boo dee jégbaloo dugg ci sëy boo ayee nit ñi di la muulu soo toggee du doy du neex sa maam wax waxul ma jéeg du neex du saf du bari du sakkan xam nga kooku boo ne suba laay ay biir biir te biir bu la muulu subhanallah nee nañ ëllëg yow mel xiyam sa kay ngay waaje kon loolu ku mu war na cee góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax ñu jéem fas jom bu baax a baax a baax ci suñu sëy yi ndaxte nag bu ñu xoolee suñu yaay ni ñu ah indi ñu ci seeni kër ñu ñëw ci seeni wet te nag la mburu daj ca taal ba ba dégg mburu hmm, ab jeeg balaa dégg njàng nangul dina métti torop muñ rek nag la balaa neex fa mu metti ba pare doo ñu bëreet rek engagé mu neex déedéet il faut nga toog am loo daj rampe galère pour bu ëllëgee la la fay fekk waxuñu nag nga ne waxee daw man bëgguma jeeg bu gaaw a daw ay sama jëkkër joxuma lu doy sama goro daf maa fàtt ah déedéet parce que bu doon sa kër la nga toog ci sa yaay am na yaay yoo xam ne duñ la may jàmm duñ la may salaam te boobu bu tee di nga toog gérer ko ndax ñoo la jur fan nga jëm doo dem da ngay taxaw ne ko yaay mun la naan nga ko génn ma kër gi sama kër bàyyi la kon xam nga yaa ngi mun nga la boo demee sa kër goro fekk fa goro bu mel ni sa yaay def ko ni sa yaay soo ko defee ni sa yaay boo juum mukk te yàlla day àtte nga la lu la goro waxal waxal waxal waxal ci sa borom kër di la dëddale bés dana ñëw suñu borom leeral lépp bala ngaa sangoo suuf suñu borom dina dina leeral lépp ñu xam ki tooñ ak kii too te it boo xasee njaboot moomatoo sa bopp doo mën ñaari fan ñetti yu ne nga aw seen yoonu kër loolu jéeg bu ne war na koo daw ñaari fan ñetti yu ne nga fay bu say doom màggee ñu ne ah faykat ba daya ngoo yàlla nañ ci yàlla musal yàlla nañ yàlla musal ci loolu te yàlla may ñu xol bu ñu sëyee suñu yaay jii ku ko xool xam ni ah moom euh, jaxaaw géemu ne exemple la fa ndax lu bari mën ko fay lijjanti ci jéeg ju ndaw ji fay say yaay defe naa de. waaw ah, dëgg la ndax daj naa ma ba damaa bokk ci eh, bureau bi nga xam ne mooy consul bi man loolu mooy sama liggéey fu ma dégg jàmm yokk jàmm ja fu ma dégg leneen dem fa ba jàmm am fa man loolu lay dox guddi di ko dox bëccëg du ma fekk ñaar ñuy xuloo mhm. ma fekk ñaar ñuy tongonte mhm. fu jàmm amul ñaa nga fa defar ba am fa mhm. man loolu moom laay def guddi di ko dox bëccëg ndax ku dul mën lu bari tuuti te ñun ñu dañu leen di gunge rek. jeexal nañ ba pare. bu yaakaar ne dee bi ñëw mag. Hmm. xam ne bu mu gën a bëri. te nga ñoom ñett fukki at ak lu ko toog. Ah. nga xam ne billaay wàccaayal. wallaahi kon ngay def lu baax. Hmm. di wax lu baax di delloo si xale yi. Hmm. di waxtaan ak yoon. man loolu rek moo tax ma ne woon. nañ ma invité. ndax lu mel nii rek laa bëggoon. wallaahi di waxtaan ak ñoom. ndax mënuma nekk bu ne ma dugg ci. néeg bu ne ma dugg te ne la ah defal nangam. Mm-hmm. waaye tey bu ma toogee fii. Mm-hmm. yaakaar am na ñoo xam ne nii tey. déglu nañu la mm-hmm. am na ñoo xam ne dañ la déglu waaye am na ñoo xam ne déglu nañu la mm-hmm. ndax say wax lu baax mm-hmm. am na ñoo xam ne dañ cay kontaan ah soo waxu say wax lu baax am na ñoo xam ne itam dañ lay bëgg a déglu waaye su ma sañoon ñoom déglu ndax yàlla may leen lu baax ndax kenn ku ci ne lu baax laa bëgg nga am ko wala gee nga damu sa doom tabaxal la kër dugal la ca yóbbu la màkk nga siyaare yor yor bu rafet ngay andi réer di njëkki jaaxaan ci sa kaw lal ku ne bëgg ngaa seetlu te boo liggéeyul nag doo ko am lu de loolu di féexlu te liggéey lu ko may te loolu di féexlu te yéen a tax muy féexlu ndax tey jii lu lu lu yëkkati tey ngeen def ko lu ñu bëgg def ngeen defal na ko ñoom ci àlla leen tëdd di féexlu leen ñaanal yàlla itam leen ñaanal sunu doom yi yàlla jàppale leen yàlla jàppale leen dañu yàlla ba mu rot leen yor ba mu rot léegi nag maa ngi nuyu ñëpp maa ngi tàggoo di nuyu ñëpp di nuyu sax Sénégal yëpp sax di nuyu kees yëpp nga xam naa ne ñëpp a ngi may xool mm-hmm. di nuyu jaxaar itam mm-hmm. di leen ñaanal yàlla ah wax dëgg yàlla jaxaw maasàllaaw tubaarkàlla yàlla boole na leen ñoom ña fa nekk ñëpp waxuma avec sax waaye mbootaay yi ñuy def ñoom ñëpp a bokk ndey ak baay xuloowuñu xeexuñu ñoom ñëpp a ànd leen lu ci kenn jóg sa morom taxaw na ci mm. loolu maa ngi leen ci ñaanal yàlla xale yi yal na yàlla jàppale leen ci loolu mag ñi tam maa ngi leen ñaanal ñun ñi nga xam ñooy mag ñi ñu leen ba ca kanam yàlla may ñu fan mu gudd ñu gunge leen ba ca kanam ñu leen di ñaan di ñaanal borom kër gi di ñaanal ñeen ñi fi nekk tamit di nga yal na yàlla jàppale leen sama xale yi nga xam itam ñooy xale yi jàngartaa yi il faut que ñu waxee tudd leen ndax ñoom itam dañuy daw rek ñu la jox seen njaboot kenn ku ci ne am nga doom am nga jabar am nga doom tey dawul du dara loolu rek la ñu fi joxe seenu njaboot lu ñu téye seen i kër téye ko seen i njaboot ñoom itam yal na yàlla jox leen yal na yàlla jox leen li ñuy wut yàlla aar leen yàlla aar yal na yàlla aar ci tali bi yal na yàlla aar sama doom yooyu laa di ñaanal jaar ko ci ay ëmmat bu reer ñoom it xaadima ñoom it daawuda sama doom jakartaa yooyu maa ngi leen di ñaanal ñoom itamit xale yu baax la bu ñu fa leen fa doon yu wéet waaw yow <laughs> itam maa ngi lay ñaanal yàlla sàmm yàlla guddal fan yi di ñaanal nag ki nga xam ne kii mooy benn sekk nee toog yal na yàlla guddal fan yi yàlla may ko wér yaram may ko lu mën yëpp waaw maa ngi ñaanal mën yëpp <laughs> jërëjëf euh, ko comme ni mu ko waxee rek moom nee na comme mënta wut ci buntu kër bu ne ni la defee nii defee nii yàlla bu ko indee fii tey mu toog ngallaawaay mu ko déggee xel te bañ koo dégloo xol yàlla nañ yàlla defal dégg ak toog waaye yii ñi may seetaan bu fekkee télé bi doyu leen ngeen tàppe ci YouTube bi. di ngeen fa gis euh, émission dalal jàmm Prestige Thiès bu ngeen fa tàppee rek sama émission dalal jàmm la tudd ngeen seetaan lu ngeen fa bëgg a seetaan. ngallaawaay nañ ko déggee xel te bañ koo dégloo xol yàlla nañ yàlla defal dégg ak topp. may nuyu bu baax nag sama caméraman yi Chérif ak bëgg fàllu ak Njaga sama preneur de son. ñu nuyu ñi ci site bi yëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm ndax nag ñëpp laa fi amal jàmm di nuyu la DG Pape Doumbouya di ko ñaanal yàlla lu mu ragal yàlla bu mu ko gis yàlla na ko yàlla bàyyi ak soxnaam yu baax yooyu di eh, Kumba ak Faama yàlla leen yàlla jàppale bu baax a baax may sant sama waa koñ waa Petit Thiali surtout sama boutiquier yi ñoom Saada Cheikh Ousseynou ak xaram yooyu yàlla leen yàlla defal jàmm may gërëm nag tey nag sama cameraman jëlal ma <laughs> ki def lii mais mooy mbenn ndooy mbenn sàll mbenn ndooy euh, sama nijaay Jóob di borom këram mu yëkkati lii jox ma ni ma am sañ ah, ma dooleel la ci sa émission kon mel ni mu ci combat bi fekk si na euh, Sophie Sow ak maam jaaram mbub mu ngi ci seen kaw moo ñàkk fàttewu ma la benn yoon yaa marikan lii nag bu leen defal njëzmeer la wala bazin riche maa bëgg ngeen delluwaat ci ganilaa ganilaa laa sol delluwaat leen ci benn macha allah yor na ci rafet ju yi ngeen du delluwaat jënd ca nag na gaaw léegi ndax gis nga ma ni macha allah tubaar fakal ñooy joxe nag sant ak ngërëm bu baax a baax ak dig daje fii la Prestige Thiès ba tey nag maa ngi ci la ma waxoon bu leen ko fàtte waa marché émission yaa ngi fii ku bëgg ma ñëw fekk si la sa place defanteeg yow yu baax incha allahu rabbi yëf yi cher ñëw leen ñu def ko rek ah moo gën ñu joxe dig daje incha allah